dañu d' accord ci troisième mandat parce que 2011 ñun ñoo àndoon ak Macky Sall mu bokk maire gàddoom ñun ñuy toog fële ci place de la nation chaque jour di di naan non au troisième mandat troisième mandat dama ci doon wax bañu ñu woon Ablaye Wade loolu ay principe la woon ñi ngi taxawaal ci principe yooyu ba tey ab Macky Sall du du ñu accord mu am troisième mandat fii. ñu ne ay élection yu leer nañ parce que élection yu leer nañ moom la ñu defoon ba Ablaye Wade jóge fi mu toog. ñu ne parrainage bi waa xam nga parrainage bi tey ji daf ci am ay petit petit poussé yoo xam ne yóbbante nanu de petit poussé yi wallaahi ba ñuy dem ca kii ba dañoo yóbbante nu waaye ñun xam ngeen wax nañu ba Sénégal yëpp déggunu ñun mënu noo dem ci dialogue bi waaye bu ngeen demee na ngeen fexe waxtaan ba parrainage bi ñu teg ko si suuf oui à la transparence du processus électoral processus électoral bu leer naa ñu lañ bëgg ndax ñun ñu ngi si biir génnuñu tey génnuñu ëllëg ñun ñu si biir yeewi askan ñun du leen sax tontu wax naa ak sànq ndax ñu ngi si